lii doy na waar mbokki internet yi tey dañu leen a indilati bu doy waar bu am ci chambre criminelle ci diwaanu Thiès muy histoire bu doy waar benn waay daal di chauffeur clando moom la ñu toj ab rétroviseur am toj di livreur mburu maanaam ñi nga xam ne ñoo yóbbu mburu yi ci bitig bi ba loola amee chauffeur clando bi daal di mer wutu paaka daal di koy bojj mu faatu ba tey jii mi ngi ci yi yoon moom chauffeuru clando ba buy wuyoo ci m mm Mbaye boo moytut gér gi dundam dinañ ko ko tëje ci kaso bi ci diwaanu Thiès ndax nag juge chambre criminelle bu tribunal grande instance bi nekk ci diwaan bi bu fekkee topp na ndigalul procureur loolu day dina am ndax waa ji liñ koy topp mooy faat bakkan ndax paakaam la jël daa di faat livreuru pain bii di wuyee ci turu ci benn histoire bu nu amoon ci ab rétroviseur mbokk yi loolu lañ leen fa yéene nettali ay ca ñu dem ci fay yi waa ji nag yàgg na ci kasub Cees bi loolu bile sa fa di wuyeetu turu mm mbay moom moom mu boo sàggunut waxoon naa leen ko ci ubbi gi géer gi dundam des na ko tëj ndax la mu def dafa rëy su fekkee rekk ki nga xam ni moo di juge bi dafa tënku ci procureur de la république dina yàgg loolu ci kaso bi ndax nag da doon daw ca Saly nekk ca diwaanu Mbour croisement Saly yoroon kalandoom di yab ay client moom bile chauffeur ki nga xam ni moo di livreur de pain bi daal di yàqu parabrisam ñoom ñaar ñu daal di songo xeex mu mer loolu moom àggay mi nga xam ni moo di livreur bi moom nag moom moo tàkk maanaam moo sooke xeex bi ci kaw chauffeur bi di wuyeetu turu mm mbay jot koo saaga yëkkati kàddu yu ko neex sànni ko ko ñoom ñaar nag ca la seen jàmm jeex sàngoo xeex tipp tipp ja mel ni ay emm emm mbay jàpp ni dañ koo humilier mu daal dugg ci ab boutique daal di jënd paaka bu ñaw ñaw bu doy waar bi loolu amee mu daal wuti nag ca diwaanu Saly xaar ki nga xam ni moo ko humilier ci xeex boobu ndax dañ leen a àtte mu jàpp ni comme moo ko tooñ te saaga na ko ci kanamu nit ñi wax na ko wax ju ñaaw wéerante nañu ay kurfeñ li muy def mooy fexe ba fekk ko barab ba mu nga xam ne fa lay livré mburu ngir mën a faj aw meram bi loolu amee mbokki internautes yi mu daal di yor paaka bi wuti sal yi moom bi le chauffeur u clando bi mu ñëwee mu ni tekk daal di pointé mel ni comme si que xamoon na ni euh, mbiram dina dina dina sotti tey Agueye daal di ñëw ci benn boutique di livrer mburu fekk Agueye ànd na ak euh, ki nga xam ni moo di beneen wëllëree ñu daldi di ñëw euh, bi nga xamee ni nag yi ñëw na di livre mburu ca la ko sa waay dabe daal di koy jam paaka ci ndodd gi ba mu ko jamee paaka ci ndodd gi ki nga xam ni mooy livreur bi daal daanoo ba mu daanoo nag ni jànjang yaram wa yépp di bësëx bësëxi ak dret ca la ñàkke bakkanam chauffeur bi daal di samp aw xel ki mu àndaloon nag daal di woote wàllu ñu daal di yenu xale bi yóbbu ko ci hôpitalu Grand Mbour ngir nag jéem xool nu ñuy def autopsie ak yooyu waaye loolu lépp itam mujj am ndax waa ji dafa mujj ñàkk bàkkanam waa ji nag daanaka toog na ay fan ñu koy wër ndax bi nu paree dañoo def plainte di ko wër di ko wër wër booba nag xawoon na durée ba daanaka teg nañ ko loxo mbokki internet yi juróom-ñetti at mu def ko ci kaso Thiès bile doñ nañ ko atte ci chambre criminel ci kanamu attekat yi xam na ni moom moo def jëf junni mel moo jël paak daal di koy bojj livreur bi waaye xam la na tamit ni man damay défendre sama bopp ndax tooñu ma nee na livreur bi dafa yàq rétroviseur otoom ci loo xam ni xëy na même bu ko tayee wala mu tayi ko sax wax ja neexul nee na bi mu defee loolu mu daal di ñëw dal ci kawam waaw di ko saaga di ko wax ju ñaaw june te nekkuloon sax chauffeur oto bi nga xam ni moo doon livrer mburu mi nee na nag ci circonstance yooyu ci lañu xeex xeex bu metti ay nit àtte ñu ba ñu àttee nag laa jóge foofa daal di yepp ay clients jëme leen sal yi nee na bi may daw ci yoon wi la ma karaat moom livreur bi ak chauffeur bu mu àndal livreur bi di A Guèye ak chauffeur bi di S nee na ñu dem topp ma topp ma topp ma ba benn moment ñu stoppé ma ni ma wàcceel yoon wi nee na ma wàcc ñu daal di may attaqué ci la A jël yatu rëy daal di ma koy wéer nee na dafa bëggoon sax faat ma waaye loolu mënut ne ndax xam naa leen te préparé naa leen nee na ci laa yor paak nag daal di koy bojjukee xaw ma ni sax li ma ci dugal ba ma bojj ko paaka bi nee na man loolu ba tey xamu ko nee na nag ci leen ko attaqué ba finalement kenn ki mënul ko tu ko dara moom mu daal di bàyyi foofa ka nga xam ni faatu na dem euh, temoin bi nag di nga xam ni moom moo àndoon ak livreur bi moom weddi na loolu ba set wicc ndax nee na waa ji bi nu xeexee ba nu àtte leen dafa bàyyi ba sa waay di dugg ci ab boutique di livrer mu doxe ko ginnaaw bojj ko paaka bi mu sedd guy kon loolu nekkul loo xam ni dafay ñëw fii ci kanamu tribunal bi rek di ko inventé nit ñi di ko dégg procureur de la république ne dégg ñaari version yëpp version waa ji def juróom-ñetti ati ñu door koo atte ak version ki nga xam ni mooy nekkoon témoin bi bi mbir yi di am coow li daal di nañu euh, gàcc procureur gàcc na waa ji géer gi dundam waaye nag mbir mi dinañ ko délibéré jamono yii nii jëm mu nekk feebu doy waar mbekk internet yi liñ ci mën a jàngal rek mooy yéen a ngi ci circulation liñ naan tali bi yaatu na waaye xol yee xat moom moo ñëw tey ci suñu fee divers bi nga xam ni ñu ngi leen koy jàngatal xam nga boo nekkee ci tali te amoo tolérance heure rek ngay def mooy jekki-jekki jël paaka bojj nit jekki-jekki yenn birig nit mu saatu wala nga jekki-jekki saaga nit wala nga wax ko wax ju bon pare di ko rëccu moo indi fee yu mel nii ndax dama jàpp ni bu fekkee yéen da ngeen nekk li nga xam ni moo di nekk euh, ci tali bi di daw kenn ku ne war naa jéggale ak di jëlale moromam ba erreur bu mel nii du am ndax dara gënte yées nga jël paaka bojj ko nit def juróom-ñetti ati kaso boo bàyyee njaboot njaboot ga dinañ sonn bu nu amul ku leen taxaw ci difficulté nga leen di nga leen di yóbbu bi ngay dugg itam boutique bi di la jaay paaka moom mën naa bañ a xam li ngay jëfandikoo paaka bi waaye yow ci sam xel waroon ngaa jàpp ni paaka bii kat boo ko jëfandikoo musiba dina am te sab liggéey kalandoo bi ngay jëlee croisement sali di daw ay mbuur ak ay ñax-ñaxal ak fu ne des na yàqu-yàqu ngoo xam ni sa avenir da cay yàqu nga xam nga ni tey bu procureur toppee euh, juge bi rek dina la tëj giir gi dund waa nañu xaar nag délibéré ba ndax kër gi dund ngay tëj wala ay at yoo xam ne du yàgg beneen bi ci des mbokk internet yi mooy xam nga léeg-léeg tali bi day bari ñoo xam ni dañuy xaw a doy waar parce que bu xol yi xatee itam jikko yi yàqu na ndax mënoo ne cib tali amoo benn comportement boo xam ne amee woo ko te nga ne am nga permis mais permis de conduire buñ la ko joxee mooy lin mooy respecter sarti code de la route mooy amal tolérance mooy xamal ni tali bi moom moo ko état ko tabax pour ngeen ci dem di dikk loolu conscience boobu danga nga ko war a amee beneen bi ci des mooy lu mel nii nag jot na ñu xoolaat tali bi bu baax def ay permis de pointe man di contrôler nit ñi ndax léeg-léeg sax da ngay gis ku yor jaaseem ci suufu otoom wala aw yatam pour en bu mel nii client bu dee taximaan client boo joteel wéer ko ko mu sedd bu dee li nga xam parfois nag mën nañu protéger pour ay agression yooyu bañ leen a bett waaye le plus souvent bu ñu jotee client bi dootuñu ànd ak seen sago moo am ci kaar am ci biis yi ak yeneen ak yeneen ba ci kalandoo yi kon jot na ñu defaraat jikko yi ndax loolu mooy dimbali taal bi kon mbokk yi internet yi lii moo nekkoon fee bi ñu doon jàngat ñu bàyyi leen rek ak euh, li nga xam ne moo di laaju bis bi rek euh, dégg ngeen fee bi ni mu demee ak waa ji jëf ji mu def nan ngeen ci xam bàyyi leen ñu suñu parti commentaire bu ñu ñëwaatee man ko yaatal ci suñu suufu vidéo yi jaa ngeen jëf ñu ngi koy sàkku ci yéen ñaanal leen kenn dalu jàmm jërë ngeen jëf